وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon ñu ñëw ci al kunuz al ashara ci al kanz saani ci faslu bi nga xamante ne moom mooy al imaanu bi ma sàmm allahu taala bihi nafsa muy gëm gi nga xamante ne moom la ñuy gëm buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ci li mu tuddee boppam euh, li nga xam ne moom lañ ci tolloon ci suñu jotaay bi weesu mooy euh, bi ñu euh, melale tur yëpp maanaam ci ahadiyatu zaati maanaam maanaam wala bokk ci xadaratul ahadiya plutôt nga xamante ne foofu tur amu fa lépp faru Euh, gisoon nañu ci bi ñu toll ci maratibul wujud li nga xam ne moom mooy xadaratul ahadiya xadaratul uluhiya xadaratul rububiya ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju arrahmaniya euh, ñu gisoon ne <coughs> dafa am kon ci xadaraat yi yoo xamante ne ci la turu yàlla yi ak melo yi di daje mooy xadaratul waa euh, waaxidiya tam gisoon nañ ko loolu ci bi ñu gis maratibul wujud la jotaay bi weesu ci euh, fasl bi mooy ci dog bi mooy chapitre bi gisoon nañu li nga xam ne moom moo ci aju ci euh, wàllu euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ni mu tuddee boppam maanaam ak ubbee gi nga xam ne moom lañ ko ubbee moom la al imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani moom la ubbee mbir yi gisoon nañ ko léegi ñu ci Euh, tur bi nga xam ne moom mooy tur bu njëkk bi te mooy allahu jalla jalaaluhu subhaanahu wa ta'ala waaye bala ñuy dugg ci loolu waxoon nañ ne dinañu wax ci jawharatul kamal jawharatul kamal dafa am ay wàll yu bari yoo xamante ne gis nañ ko bi ñu nekkee ci maratibul wujud ak ci suñu jotaay yi weesu bi ñuy ubbi maanaam li nga xam ne moom mooy dog yi nga xam ne moom la ñu toll ci ñaari dog yi taxaw nañ ci euh, dugg ci wàllu jawharatul kamal euh, rawatina ci bi ñuy wax ci cosaanu mbindeef yi maanaam cosaanu li nga xam ne moom mooy euh, univers yi mooy aalam bi mooy univers bi waaye comme ay aalamuuna ñoo am ay awaalim mooy ay multivers ñoom ñoo am maanaam ay univers yu bari multivers muy ay monde yu wute benn bu ci nekk am jawhar fardam moom jawhar fard et que cosaanu ñooñu ñëpp ci cosaan mooy jawharatul kamal mooy wurus maanaam wala mbell gi nga xamantene ne moom mooy euh, bi mat sëkk bi te dajale lépp muy réalité yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu am ay formule ci xaraf yi ak ci baat ni mu tëggoo mu tudd jawharatul kamal fi madhi sayyidi rijal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu tudd ko nag ci ay étapes yu bari bu fekkente ne yéen a ngi doon bàyyi xel bu baax ci bi ñuy gis ci euh, wàllu biñ doon waxtaanee euh, Eh, bi ñu doon waxtaanee jawharul fard mooy la substance singulière maanaam fi nga xam ne moom loolu tudd nañ ko fa bi ñuy wax ci borom subhanahu wa ta'ala li mu njëkk amal li mu njëkk feeñal li mu njëkk yëpp tudd nañ ko ci tudd nañ ko bi ñuy gis al wajibul wujudi li ghayrihi mooy ki nga xamante ne moom amat da amam daa war waaye keneen a tax amam war te mooy ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudd nañ ko ci euh, mais al arwaaxul mooy ruux yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala njëkk amal waaye laataa mu leen di amal ñoom dafa am ci benn ruux ñoom ñëpp bu ñu bokk ballee jugoon génneendoo euh, nga xam ne ñooñu moom mooy seen cosaan euh, kon étape ultime yi mbooleem cosaan yi euh, moo leen dajale ci mbooleem xadaraat yi muy jaw jawharul li ko lëkkaleeg salaatul faatixi nag mooy ne salaatul faatixi day exprimer adduna bi sos bi ko borom subhaanahu wa taala sosee si ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa en tant que xaqiqatul muhammadiyya mooy la réalité muhammadiyya taxawaay boobu moom la salaat faatixi taxawee jawatu kamal nag di cosaanu loola lépp muy fondement bi mi ngi mel ni tabax ak fondement woom loolu moo lëkkale jawatu kamal ak salaat faatixi jawatu kamal salaat faatixi moom mooy tabaxu univers bi jawharatul kamal di fondement wu tabax booba di source bi di matière première bi di cosaan bi di gène bi voilà la gène ou la signature génétique de l'existence voilà et que Alquran mooy la codification totale moo tax Fatiha mooy lépp mooy Fatihatul kitab moom moo tax Fatiha ak salaatul Fatiha ñoom ñaar euh, ñu représenté li nga xam ne moom la ñu représenté. Euh, ginnaaw ba wax nañu loolu leeraloon nañu ci benn wàll bi ñuy jeexal maanaam moo xam benn jotaay wala ñaari jotaay wala ñett laataa ñuy jeexal maratibul wujud mooy martaba yi existence bi maanaam niveau yi dimension yi waxoon nañu euh, li nga xam ne moom la al imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani gis-gis gi mu am ci yenn baat ci jawharatul kamal leeraloon nañ fa lan moom moo ci suñu taxawaay suñu gis-gis ci wàllu googu ak euh, lan lañ ci gëm lan lañ ci jàpp lan mooy li nga xamante ne moom lañ mën a taxaw ne mbir mi de ñun nii lañ ko jàppe loolu moom leeraloon nañ ko foofu ci euh, wàllu googu waaye gis gi ñu gis ne ci diggante ñaari mbir yooyu ñaari dog yi muy maratibul wujud mooy les dimensions de l'existence niveau existence moom nekk-nekk gi ak gëm gi ñu war a gëm turu yàlla yi yi nga xam ne borom bi moo ko tuddee boppam te gisoon nañu balluwaayu turu yàlla yi ak ni ñuy feeñee ci xaqiqa yent bi sallallahu alayhi ak yooyu ñu gis ne ñu rafetlu ginnaaw sax bi mu amee mbokk yu ko laajoon Euh, ci ne war nañoo firi jawharul kamal waxtaane ko ñu rafetlu ko gis ne effectivement wàll gi waroon nañ ci firi war nañ ci firi bu ñu yegsee fii jawharul kamal ñu ngi ko doon digge boobu ba léegi incha allahu taala tey la borom subhanahu wa taala dogal ne tey lañ ci taxaw tàmbali ko waxtaane ci euh, <coughs> ginnaaw euh, biñu jàppee ne war nañ ko waxtaane itam ñu gis ne amaan na mën nañ koo def benn parenthèse ci li nga xamante ne moom mooy euh, kuuru kunus yi maanaam ñu def ko parenthèse euh, waxtaane ko ci li nga xam ne moom mooy bindu euh, wala waxu ki nga xam ne moom ci boppam mooy réceptacle jawhatu kamal ci moom la jawhatu kamal wàcc moom la feeñee ci moom muy alqutbul maktum wal xaatamul muhammadiyil maalum mawlaana abul abbas ahmad ibn muhammad atijani alayhi ridwaanu rabbaani ci mbind ak làmmin ak toxalu ki nga xam ne khalifa xalifaam bi gën a ci lu joyal al xalifatul muazzam Seydi Ali Harazim barada radiyallahu anhu warda wanna kon ci jawahirul maani wa bulughul amani moy téré bu am solo bobu bi nga xamné ne téré bi gëna mag bi nga xamné ne référence bi gëna a mat ci al ci euh, tariqa tijaniya sauf que euh, wala bok ñu yok ci euh dinañ ci défor nañ manam dafa am ñetti salatu ala nabi ñet d'ailleurs suma jumul ci ñuy wax ci maratibul wujud yi am na benn niveau boo xamante ne bañ ca tollee leeraloon nañ ne dafa am ñetti salaatu ala nabi yoo xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo jox cheikh na Ahmed Tijaani radiyallahu anhu te ñetti salaatu ala nabi yooyu euh, benn bi mooy al yaqutatul xaqaayiq bi ci des mooy salaatul mooy jawharatul kamal بيتي ديس موي صلاه الغيبيه الياقوتة الحقائق تي حقة المحمدية لا أجو لا ريالة محمدية صلاة الغيبية تي الحقيقة الأحمدية لا أجو لا ريالة أحمدية مومو جنة كابه بيغا خمتين أنك موي بي تي ديگ بي موي بي انترميجير بي جن لينا داجل جن تي موم رك تي بير صلاة على النبي يوي moom moo nekk ci al azkaaru lazima zikar yi nga xam ne danoo war képp kuy ab képp koo xam ne dangaa suubu ci yoonu tariqat tijaaniya muy joot kamal moo leen gën a dajale gën leen a matale donte moo leen gën a gàtt moom euh, dajale volet yëpp yi nga xamante ne dañoo nekk ci xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya ci maqaamay qaaba qawsayni aw adnaa yëpp mu dajale ko téye jawhartu kamal boobu incha allahu taala moom la ñu war a waxtaanee tàmbale ko ci suñu jotaay bi am na beneen mbir tam boo xamante ne mat na leeral foofu mooy ne ñetti salaat ñetti salaatu ala nabi yi borom subhaanahu wa taala defal loolu nañu xéewal mat na ci ren ji juróom-ñeenti at ci ren ji wala mu jege fukki at mais firi woon nañu ko yaataloon nañ ko defoon na ci ay sharxa muy yaqutatul xaqaayiqi ak salaatul xaybiya bi bi nga xamante ne ñi ngi jàng téere bu am solo bi nga xamantene amul amulub dend bi nga xamne mom mo tuddu tudd hizbur rahim rimaaxu hizbur rahim ala nuhur hizbur rajim ki nga xamantene mom moko bind mom moy abul fadl wa suyuufi wa rimaax cheikh alxaaji omar ibnu said ibnu osman al fuuti al tuuri al gadawi radi allahu tabaraka wa taala anhu wartahu wanna bihi bi ñuy sax loolu d'ailleurs euh, ci lañu euh, gisoon ñaari salaatu yooyu euh, ñu defoon ko ci parenthèse leeraloon ko ci tamit bindu ki nga xam ne mooy Seydi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu ci Jaarumaani incha allahu taala ci mbindam boobu tamit ci la ñuy wëlbatiku sukkandiku waat ci maanaam ngir waxtaanee li nga xam ne moom mooy Jawharatul Kamal donte ñu bari ñu ngi ko doon laaj depuis boobu def na juró fukki at sax mën nañ wax ak yu mel noonu kañ ngay wax ci Jawharatul Kamal kañ ngeen def firi ci jawat Kamal kañ kii ci Jawharatul Kamal ah borom bi de subhaanahu wa taala ah, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra borom bi lépp lu nekk daf ko wutal daytal daf ko wutal lim daf ko wutal dayo voilà mooy ajalul musamma tur boo maanaam dëxale boo xam ne daf koo tudd dañ koo tudd boo xamante ne ajuwul ci kenn ku dul ci moom tey nag moom la boroom subhaanahu wa taala dogal la walillahi alhamdu wal minna kon euh, dañuy euh, sukkandiku kon ci mbind bi nga xamante ne moom la Seydi Al Harazim wax radiyallahu anhu incha allahu taala kon ñu tàmbali ko ñu tàmbali ko ci e, maanaam moom la tuddee kon salaatu saaniya mooy ñaareelu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy jawharatul kamal mu ne wa nafsuhu yaxu sharaab mi ngi nii Seydi al Harazim Barada radiyallahu anhu ci jëmmi eh, caalale yi ñu ci bi ñuy def salaatul xayb bi ak yaaqutatul xaqaayiq yi tamit ci lañu ko solowee ba tey mu ne bismillahi a irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima mu bismillahi ma ngi tàmbalee ci tur buur yàlla arrahmaani aji fees deedi ji yërmande rahim i ka jiyaatu yërmande wa sallallahu yàlla buur yàlla julli على سيدنا سنو سانغ محمد محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين وصحبه أك صحابة يتدى وسلم ت مسلم تسليما مسلم بما تسكتين يوم من الحمد لله الذي فتق من كنه الغيب رتق الكائنات وجعل أصلها ونشأتها نور حقيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أصل الموجودات فأوجد منها بقدرته القدمية وكلمته الأزلية فطرة آدم وجعل شكله صورة العالم وعلمه الأسماء كلها وجعله من جميع البرية خلاصتها وصفوتها وأخرج من عنصره الأرواح والذرية والأشباح واختار منها صفوة الأنبياء والرسل والأولياء بالرسالة والولاية والحماية والعناية وخاطبهم بخطابه الأزلي الأبدي وكلمهم بكلامه الإحاطي السرمدي ليدعو به عباده إلى خدمته وشوقهم فيه إلى قربه ومشاهدته واختار من بينهم في الأزل روح المصطفى روح المصطفى وأكرمه بالمقام المحمود والدرجات العلى وكمال الاصطفاء وخاطبه بأشرف كلامه وأكرم وأكرم وأكرم فرقانه الذي هو مكنون أسراره الذاتي وألوان صفاته وأسمائه وعجائب علومه وعلومه الغيبية وغرائب آياته الأزلية وأرسله إلى كافة البرية ليهديهم به إلى الحق والحقيقة الحقية كون الحمد mboolem xaaji cant alhamdu dëgg dëgg cant cant ga borom bi cantoon borom boppam laataa mindi fi di am lillahi aji sax la ñeel buur yàlla bi nga xam ne fataqa moo fett moo fett gis nga ko ni eh, kii di fette maanaam eh, nen ñu fete taq muy fataq min kun hi ci nekkuteg al xay bi kumpa rattaqal li nga xam ne moom mooy fatta fattuwaayu alkainaati nekkatee fi maanaam mboolem li nekkoon dafa nekkoon rat ratxan maanaam lu benn bloc bloc bu suudewu sauf que bloc boobu suudewu woon amul woon fu mu amul woon euh, euh, volume amul volume bu ñu mën a xam ndax euh, dafa dafa dafa laqatu woon dafa tëj woon dafa nekkoon ci kumpa carrément existence ma'am nekkte fi dafa vraiment kumpa dans un mystère total et absolu borom bi nag vous wa taala daal di koy tekk daal di koy génne maanaam mu fet mindeef exister waaye nag ba mu koy def loolu wa dafa def aslaha cosaanu mindeef yooyee ngir ñu am wa nashataha akuk conception bi nan la ko fait, te mooy originalité bi mooy origine conception boobu ak mooy nuura mooy leeru xaqiqati dëgg-dëggi kan mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy wax xaqatu muhammadiyya mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg moom mooy kan boo ko jàppee ci ne daa gane àdduna Makka gàddaay na dem Madina eh, trente neuf ans six mois ñu Seydina Jibril feeñu ko ay salaam quarante ans ñu yónni ko mu dem gàddaay dem Madina jin manam daal di làkk fukki at ak benn ginnaaw gàddaay bi nga yamale mbiram fofa xamoko kuy bi sallallahu dafa am realité deug mom moy kan ba borom subhanahu wa ta'ala mom moy kan deug deug deug deug ba borom bi yabal ko koku nak ciosanu koka manam deug deug lamu doon mom yenent bi sallallahu lañ nane haqiqatul muhammadiyya léegi kooku nag dëgg-dëgg lamu mu doon moom la def ne moom mooy cosaan te moom mooy sosuwaayu ak it mi nga xam ne moom mooy conception wu fabrique univers bi existence bi mooy cosaan bi c'est l'origine kon fa fakkaana moo tax mu nekk asla cosaanuk al mawjudaatu mboolem nekkite fi existence yëpp moom mooy cosaan bi fa awjada moom boroom subhaanahu wa ta'aala mu amal minha ci dëgg-dëgg kooka mu yenente bi sallallahu mooy xaqiqaam mooy son esprit réalité am dëgg bi qudratihi ci sañ-sañam ak kattanam alqidamiyati gay ko jug jiitu ga nga xam ne amul cosaan amul fu mu tàmbale ndax lan dafa amee une prééternité et une ancienneté absolue ci sañ-sañam googu nag nga xam ne moom la boroom subhaanahu wa taala eh, amee mooy

ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moy euh kon al wajibul wujudi li ghayrihi manam mom ak amam dafa war waye amam warul li zatihi ngir nek nek mom ngir jëmmi bopam koku yàlla la bur yàlla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mom dafa am amam dafa war ngir jëmmi boppam yent bi nak sallallahu alayhi wa sallam mom moy ki nga xamne mom amamit da war waaye ngir leneen ak keneen te biñ tolle ci phase maanaam bi ñuy waxtaanee maratib lu wujudi leeraloon nañ ko taxawoon nañ ci xataa ba ci côté kalam bi maanaam ba leeral ne moom yenent bi sallallahu ak amam noonu la war a demee te volet boobu mutakallimuuna yi ñoom duñ ci am àgguñu foofu maanaam mutakallimuuna yi mooy théologiens yi euh, ñiy def cette rhétorique discursive là ñom amuñu niveau buñuy mëna xalaté ba mëna démontrer luñu tuddé tuddee xaqiqatul muhammadiyya ñom amuñu ko xamuñu ko lutax ndax lool da sut seenu les réalité la réalité muhammadiyya xaqiqatul muhammadiyya dafa sut seenu les sen xam-xam du domaine euh kon mais lool mo motax bokul ci pass pasu ñi nga xamné ñom ñoom ñooy mutakallimoon yi maanaam duñ la jangal mukk seen pas-pas ba di la wax ay xaqatu Muhammad yaak bi ci aju waaye loolu pas-pasu akaabirul aarifiina yi la punkalu aarif billahi ñi nga xam ne ñoom ñooy kawe ñi ñoom ñooñu ñoo am pas-pas boobu te ñooñu ñoo xam xaqiqat Muhammad yi boobu te ñooñu ñoom ñoo am eh, ñoo mën a daj ñoo mën a am accès ci di mën a jàng wala di jàngale lépp loo xamante ne maanaam day aju ci xaqiqa boobu ci dëgg-dëgg ko kooku kan mooy yenente bi dëgg sallallahu alayhi waye tamit ñom ñoo xamne ne ñoo am pass pass te xamne al wajibul wujudi ñaar la du kenn wajibul wujudi li zaatihi koku yalla la mom mom ak amam da war ngir jëmmi bopam manam par essence ak amam dafa war yent bi nak sala salaam réalité manam deug deug moy kan koku amam war dafa war tamit mais du ngir jëmmi bopam mais ngir kenen la di borom wa taala amal ko espace dans l'espace temps l'unité des espace temps d'ailleurs ci mon la espace temps créé il est en dehors de l'espace et du temps à travers mon ci lañu créer lu espace ci lañu créer lu ñu tuddee temps maanaam bërëb yi ak jamono yi kon moom mooy cosaanu lépp borom subhaanahu wa kon amal ko nag ci sañ-sañam gi nga xam ne kojug cosaan googu la kojug kojug yàgg googu la kojug jiitu la wa kalimatihi ak kàddoom gi nga xam ne al azaliyatu kojug a ñàkk am fu mu tàmbalee la mooy azal mooy loo xam te ne mësta deñ di am donc mooy l'antériorité absolue voilà wa fitrata ba pare mu def ko mu nekk fitrata aadama maanaam euh, balluwaay mooy euh, fentuwaayu fentuwaayu ma aadama alayhi salaam boo seetloo ci jawaarul ma ci jawaatul kamal mi ngi naan wa nuurul akwaanil mutakawwinatil aadama yi saaxibil xaqi rabbaani mooy leer gi nga xamante ne dafa tabaxo ci koduk adam manam mom lay junj fi. ni lañu tuddé baraatul istihlal manam moy ci balaxa manam moy soy wax dara di tambalé wax ngay wax lo xamantene na ngay tambalé wax ji di ubbi introduction bi rek ci lañu xamé sujet bi nga nara jëm lan la lan nga nara a fi mais ci rafet gogou non rafetu duggin euh motax mu tudd ne mam Adama alayhi salaam jëmm ji mu yor ni ni mu cosaanoowee maanaam ak ni mu amee ni mu sosoo borom bi moom ci boppam en réalité bi mu jël mooy forme yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom la jox moom Adama wa jaala te mu def tamit shaklahu maanaam aw rëddëm maanaam ni mu mel ci rëdd suuratal alam mu nekk euh, melow adduna bi Madame, la forme même de l'univers forme dans sa réalité qui ni profonde forme humaine la yor Adam. Madame, adam la yor manam te jëmm joju moy réalité bi alayhi wasallam loolu dans toute sa splendeur et dans toute sa son énormité manam ni mu ni mu dans ni mu dans toute sa plénitude ni mu maté su la borom subhanahu wa taala mayoon ba nga univers bi existence bi carrément dépassé carrément ba tim ko da ngay forme doomu adama la forme nit la yor muy forme ki nga la réalité mais aussi xam nga univers bi euh, composantes euh, ci atomique manam atome yi comme bu carbone azote hmm. et cetera hmm. euh, yooyu yëpp bu ñu leen jëlee quatre lañ mooy Muhammad te quatre vingt douze yooyu yëpp ci benn jëm rek lañu daje mooy jëmmi doomu aadama nit nit rek rek rek moo dajale lépp ci jëmmam moom leneen lu dul nit day am benn parti bu am ci yow am parti bu amul ci yow forme boobu nga xam ne moom la borom bi def subhaanahu wa taala ba pare waa allamahu mu xamal ko al asmaa ak tur yi kullahaa ñoom ñëpp mboolem turu mbir yi borom subhaanahu wa taala da koo xamaloon maam Adama loolu tax Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma firee woon ko noonu waaye yamutoon ci tuuru mbir yi mais turu yàlla yi nga xam ne ñooy daw ci mbir yi te ñoo amal mbir yi ñoo ko jëmmal te ñoo ko saxal yëpp la xamal maam Adama. wa ja'alahu ba pare mu def ko moom mam Adama min jami'il bariyati ci mboolem nekkteef yi mbindeef yëpp yi am mu def ko xulaasataha mu def ko mbell ga maanaam mooy la quintessence wa taxa ba pare def ko la gën a sell ca ñoom wa axraja te mu génnee min unsurihi ci ay xeetam maanaam ci ay éléments yi ko compose mooy naturam am al arwaaxam ruux yi mooy kon ruuxu yenent boobu sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne jëm bi maam aadama la yore te moom la ñu jox maam aadama moom la ñu jël borom subhaanahu wa taala moom la jël eh, mu nekk cosaanu mboolem ruux yi y compris al arwaaxul muhayyama maanaam mooy ruux yi nga xamante ne ñoom ñooy ruuxu cosaan yi nga xam ne moom la borom bi njëkk amal nga xamante ne dañoo jeex tàkk ci bëgg sopp borom subhaanahu wa taala ñu nekk ci géej gu yaatoo yaatu géeju sopp borom bi ak jeex ci moom tàkk conscient wuñ sax ci seen propre existence ñoom ngir jeex giñ jeex ci yàlla borom subhaanahu wa am benn bu ci jëlee mu nekk mu mu mu xelal mu tudd al aqlul awwal moo tax dimension feeñu waayu yeneen bi sallallahu alayhi ci dimension moom al aqlul awwal moom la ñu wax al qaramul a'la et cetera loolu gisoon nañ ko biñ ci taxawee bi ñu gis urush yi bi ñuy gis al urushul xaqaa'iq loolu gisoon nañ ko xalima googu kon xalima googu nga xam ne ci la borom bi le lépp mooy l'intellect premier euh, mooy ad-durratul bayda maanaam gisoon nañ ko mooy la perle blanche originelle tout loolu yëpp ay forme la ci di réalité yent bi sallallahu alayhi wasallam réalité yi nag origine loola ci la jawatul kamal di wax ba pare daa di wàcc nag ci yeneen dimension yëpp euh, kon mu xamal ko loola euh, ba pare mu nekk ne ci moom par sa nature maanaam ci élément naturel yi ko composé ci la yeneen ruux yëpp génnee wa zurriyat ci la njaboot yi génnee wal ashbaax jëmm yi tamit ci moom lañu ñu kon dangay gis ne yeneen bi sallallahu alayhi maanaam maam Adama moom mooy kon moom maanaam moom la feeñal ci moom noonu mu nekk kon jëmmi univers mais sauf ko moom li mu jëlee noonu jëmm ji moom forme boobu originalité yeneen bi la moo tax sallallahu alayhi moom mooy moom la yàlla jox tur yi xamal koko ko moom moom moo ñu jur ñun ñëpp suñu jëmm yi ci moom lañ jóge naka noonu ruux yi. ci noonu lañ koy dugalee ci suñu jëm yi ñun ñëpp muy suñu cosaan te moom cosaanam mooy ruux yeneen bi sallallahu alayhi moo tax borom bi ne dama wa nafaxtu fiihi min ruuxi dama wol ci moom sama ruux kon ruux googu muy ruux yeneen bi sallallahu alayhi di cosaan bi moom la am min ruux yi ci ruux googu ci la génnee maanaam ruuxu maam Adama alayhi salaatu wassalaam mu contenir tour yàlla yep mu xam ko est-ce que imam al-Busayri radiyallahu anhu mom bimi wax ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam bimu nan lakazatu al ulum min alam al ghay bi wa minha li adam al asma yow de Eh, jëmmi xam-xam yépp ak turu yàlla yi melo yépp jëmm yi ñeel na la yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye maam aadama moom maanaam loola moom tur ya la am kon maam aadama dañ ko jox tur yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu jox ko jëmm yi maanaam dëgg-dëgg mbir yi bu ma ko doon niral tey dama naan Euh, buñ ne un milliard d'euros loolu tur la tur la nomination nomenclature appellation mais jëmmi un milliard d'euros nga tooyee ko nii bokkul de ak ñu xamal la lan mooy un milliard d'euros rek nga xam ne ah, d'accord un milliard d'euros gi même bu dee xam nga ko ba xam ba conscient ci lan la la mën a jariñ lépp ba tey bokkul ak tey suñ la ko joxoon nag léegi nga téye ko yow yaako ko moom ba tey du benn loolu mooy teqale li borom bi def ci turam ak ay meloom ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak la mu def ci moom aadama loolu mooy seen différence walillahi masalu ala maanaam ngir rek jegeñal mbir mi ci xel yi la waaye yeneen bi sallallahu ay biram ëppante na ak ñu koy niral ñu koy melale kon jëmm yooyu nga xamante ne moom mooy génnee ci moom maam Adama alayhi salaatu wassalaam ah, ak njaboot googu waxtaara dafa tànn min ñoom ca ñoom safwatal ambiya ki nga xam ne mooy ki gën a sell ci yenente yi alayhim salaatu wassalaam war rusuli ak mboolem ñañu yónni ña wal awliya yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy parandoy buur yàlla ya mooy waliyu yi nga xamante ne dañ le a manam jox manam ñu and ak bir risalati ci bataxal moy message bu ñu wal wilayat akuk parandoo buñ farak yalla wal himayat akuk karange wal inayat akuk jappandal moy assistance karange moy sécurité voilà euh, préservation kon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom la yàlla tànn ci ñooñu waaye képp ku am risaala maanaam nekk ab yenent bu ñu yónni secret risaala ga ca moom la jóge ñëw ci roogalaat ci yow képp ku am wilaya secret wilaya ga ca moom la jóge roogalaat ci yow képp ku am kaaraange secret kaaraange ga ca moom la jóge roogalaat ci yow waaye képp ku am ak jàppandal muy une assistance divine ci moom la jógee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam roogalaat ci yow wa xaatabahum yenent yooyu day boroom subhaanahu wa taala daa jokkalante ak ñoom kaddu bi xitaabihi ci kaddoom al azali gi nga xamante ne kojug lu amul fu mu tàmbalee la ak al abadi ba pare kojug faww la kojug ajag jag la ca ginnaaw moy al azali al abadi ko jug faww la ca kanam maanaam mooy l'antériorité absolue et la postériorité absolue maanaam mooy la prééternité ak l'éternité borom subhanahu wa ta'ala kàddoom amul fu mu tàmbalee amul fu mu amul lu ko mën contenir te kàddu googu gu jiitu googu moom la waxee ak yeneen alayhi wa wa kallamahum mu wax ak ñoom mu wax ak bi ci gi al ixaati bay aji waaye bay aji nga tout donc c'est sa parole englobante et permanente euh, ou bien continue sarmadi mooy continue li aw bu ko ñu mu bi ci ay ci kaddu googu leen borom subhaanahu wa yoon yónni yabal ko mooy bataaxal boobu te kaddu googu du dara lu dul feeñu waayu jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ruuxam dëgg-dëgg mooy kan et que message bi nga xamante ne moom moo nekk ci réalité yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di kaddu borom bi subhaanahu wa moom la roogalaat moom lu secret boobu moo nekk ci yeneen yi alayhi salaam bu ko defee ñu mën a woot nit ñi jëmee ci maanaam woo jaam yi ilaa yi ci ñu koy liggéeyal. wa wa shawwaqahum ba pare mu xërtal leen maanaam mu bëggloo leen soppaloo leen lool fiihi ci moom ilaa qurbihi ci ñu jegeñ ko ñu maanaam nit ñi sàkkoo jegeñ yàlla wa mushahadatihi ak di jébeeroog moom maanaam mooy di jàmmarloo ak moom ci jébeer mooy di ko contempler waxtaara waaye dafa tànn min baynihim ci seen diggante ñoom yenent yi alayhi salaam fil azali ci lu jiitu depuis la prééternité l'antériorité absolue ci la Ruh al-Mustafa, ruuxu ki nga xamantene moy ki ñu belle ki tan ko ci biir tànneef yi tànneef yooyu ñu tannat ko ci seen biir ñu tànn ko ci seen biir Manam kon ñi gëna sel sell lañ jël ñi gëna sel ci seen biir ñooñu ñi gëna sel ci seen biir moom ñu jël ko yëkkati ko tànn ko muy muy ko gëna sel. sallallahu alayhi wa sallam wa akramahu mu terale ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil maqaamil mahmud ci maqaama bu kawe boobu ñuy al maqaamul mahmud mooy maqaama bi nga dañ sant dañ koo gërëm ndax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ki incarné cantu gu jiitu gi ci borom bi subhaanahu wa taala ga mu cantoon boppam la ci alhamdulillah moom la ubbee alquran ba ca fatiha alhamdulillahi rabbil alamin cant googu jiitu mooy cosaanu lépp xataa ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam turam yi gën a màgg ak maqaamaam yi nga xam ne ñoom la gën a incarné mooy ñaari xaqaa xaqiqaam yi nga xam ne ñoo gën a ñoo ñoom ñoo polarisé yeneen xaqiqa yépp mooy alxaqatul ahmadiya xaqatul muhammadiya ci ñaari turam yi ahmad ak muhammad ñoom ñëpp ñi ngi ballee ci tur ci cant googu xam moo tax yenent bi sallallahu ñëw yore maqaamatul mahmud nga xamante ne ci maqaama boobu ci lay ramboo mboolem mbindeef yi yowmal qiyaamati ci la rammoo mboole mbindeef yi ci cosaan ba tax ñëpp am génn ci ñàkk am dem ci am waaye ca la leen rammoo tamit yowmal qiyaamati borom bi ñëw at borom bi atti leen sallallahu kon moom la ko terale wa darajaati ak daraja yi nga xam ne al ula ñoom yi kawe amul daraja bu ñu mën a supposé lu dul ne la ci gën a kawe la gën a kawe loola loola la ko gën a kawe yent yàlla Ahmad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko incarné wa kamalil istifa ak matuk belli borom subhaanahu wa taala daf ko sellal belli ko sellalaat ko ci biir mboole mbindeef yi ci anam gëm gën a mate loolu yëpp borom bi terale ko ko wa xaatabahu waaye mu jàkkaarloog moom mu jokkalanteeg moom ay kaddu waaye bi ashrafi ci gën jaa tedd kalaami ay kàddoom kàddu yi gën a tedd ci kàddu yi la borom subhaanahu wa taala wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam te mooy alquran d'ailleurs mooy kàddu gi dajale lépp wa akrami furqaanihi waaye mooy bi gën a tedd ci li nga xam ne moo tàqale diggante mboolem nekkatee fi mboolem xaqaa'iqi réalité mbir yi dëgg-dëgg mbir yi lan la lenn lu ci nekk ñu teg ko ci palaasam ba pare muy dox na mu war a doxee ca la mu war a dox fam ko war a defee nan ko war a defee loola yëpp borom subhaanahu watala leeralal ko ko won ko ko xamal ko ko ba pare mu wàcce ko ci moom ci woyof wo maam ci anam gu woyof nañ koy jànge comme ni mu wax wala qad yassarna alqur'ana li dhikri fahal min muddakir ay way alqur'an de yombal nañ ko yombal nañ ko de ngir nit ñi di ko di tudd di ko jàng voilà kon euh, nga xamante ne dajale na xam-xam yépp xam-xam yépp ñi ngi ci biir alquran amul xam-xam bu génn alquran amul mooy ndeyu xam-xam yi di cosaanu xam-xam yi lenn lu ci nekk dans les moindres détails alquran daf ko leeral léegi nag lenn lu ci nekk domaine boo dugg ña ko xam bu ñu liiree alquran dañuy yéemu ci alquran pertinence bi muy waxee ak subtilité bi muy waxee sew sew bi muy waxee ci domaine bi di utiliser les termes vraiment yi nga xam ne ñoom ñoo war mais loolu il faut nga xam domaine bi ba pare bu maîtriser ko wala nga xam alquran borom subhanahu wa ta'ala ubbi sa xol ci réalité yi ci dëgg yi ci xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju borom bi nag ànd ak ne mboolem mbir yépp tudd na ko ci alquran ban mu ne maa farratna fil kitaabi min shay'in bàyyiwuñu ci téere bi dara waaye ànd ak loolu yëpp mu yombal ko mu nekk kàddu goo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ko jagleel eka xaqiqa alquran ci biir nekk tamit réalité bi nga xam ne day wax lépp lu aju ci réalité borom subhanahu wa ta'ala moom mooy kat ak réalité yi aju ci ay biram ci ay turam ay melo ci ni dans leur infinité et dans leur multiplicité maanaam ni ñu bëri ak ni ñu amulee fu wax ci aju ci arash ci kursi ci safara ci asamaan yi ni mbir ya ci aju la nekk seen biir composé ci biir suuf ak seen le monde animal végétal Mineral, ak yeneen ak yeneen lu ñu xam ak lu ñu xamul yépp alquran tuddu leen ci anam gu leer wax malaaka yi seen monde yi jinni yi seen monde yi yépp alquran tuddu leen leeral lépp ña xam-xam ña xamul réere ba pare mu wëlbatiku nag codifier loolu yépp nag maanaam ci baatin mu codifier ko ak alquran muy ruux gu sell gi nga xamante ne moom loolu yëpp taxaw muy ruuxu na muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran boobu kon borom mi daf ko koo teral allazi moom mi nga xam ne moom alquran huwa mooy mag noonu bërëbu ñoŋalu asraari mbooti zaati yi nekk-nekk moom buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam borom subhaanahu wa taala buur yàlla fa mu ñoŋalee ay secret nekk-nekk moom yàlla les secrets de son naissance sanctifié maanaam foofu ci alquran la ko def ba pare mu terale ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alwaanu moom mooy e, bërëb bi nga xamante moom mooy tamit moom alquran mooy ci mais en tant que furqaan tam mooy melo yi maanaam mooy e, couleuru sifaati yi ay melom maanaam ay xeeti wuute yi diversité melooy borom bi mooy les attributs divins wa asma'ihi ak ay turam wa ajaibu alquran boobu mu borom bi terale ko mooy kéemtaaf mooy kaawteefu ulumihi xam-xamum alxaybiyati yey ko ju kumpa mooy ces sciences d'ordre mystérieuse impénétrable wa xaraibu ak euh, way tumranke ayaatihi kaawteefam yi al azaliyati yey ko ju euh, jiitu te amuñu fuñ tàmbale mooy euh, donc raraay moi tumuraank moi les les les les les les choses étranges les caractères étranges donc de ces signes prééternels wa arsalahu te ko ila kafatil bariyati ci mboolem mbindeef yi nit ñi yi monde animal monde végétal monde minéral euh, monde le monde d'en haut moy ci kaw ay souf li ci diggante bi monde yu njëkk yu mujj yi yëpp mboolem luy existence rek yent bi sallallahu sam wasallam buur daf ko yabal ci moom mu nekk ay yabal yu wuute comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon mu am li nga xam ne moom mooy législation bi mooy àtte bi charia bi ñu yabal ko ci nit ñi ak jinne yi ngir ñu mettre ko en application ñu jëfe ko waaye mu am ay xaqaa'iq ay réalité spirituelle réalité seigneuriale ak yeneen ak yoo xamante ne rek yent bi saa ya ya borom soata daf ko yabal ci meneen yeneen mbindeef yépp li yahdiyahum ngir mu gindi leen bi ci jaare ko ci alquran boobu ilal xaqi jëmee ci dëgg gi mooy buur yàlla subhaanahu wa taala waaye wal xaqiqati ak dëgg dëgg alxaqiya yey ko jóg buur yàlla bay dëgg te sax mooy les réalité euh, véridiques voilà wala les les vérités de la réalité suprême kon maa ngi sant borom boobu subhaanahu wa taala nee na gis nga wax ji boo ko déggee di nga gis ne ki wax wax jii de ku tumranke la ci sant yii mu wa ashhadu waaye maa ngi seede gëm dëggal wóolu an lii mbir te mbir mooy ne laa ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg laa ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ga dana jariñ ñàkk gaa jaamu gay lore amul benn buur boo xamante ne moom mooy sañ am sañ-sañ bu mat sëkk ci mbindeef fi di dogal laa ilaha amul kenn koo xamante ne yelloona lépp pour lu mu digle ñu topp ko te duñu xalaat lu mu tere ñu bàyyi ko ca saase te duñu xalaat laa ilaha amul kenn ku fi def te moom illa allah ku dul allah buur yàlla boobu rek la al ahad moom mooy càpp ki nga xam ne mooy kenn ki bi zaati yi ci nekk nekkam maanaam moom kenn la ci nekk nekkam amul euh, contraire amul Mm, mm, dend ba pare amul diversité manam pluralité amuko beuri bëri waaye mom kenn la te lenn la manam mënuñu ko subdiviser mënuñu euh eh, par exemple nit eh, le corps humain manam do jëm nit da am la tête le tronc et les quatre membres masalan manam ne serait-ce que lolu yalla mënuñu ko wax ci loolu ci mom amul te ahadiya googu ci nekk-nekkam amul tur amul melo amul naka amul naka wen amul kañ amul fan amul leneen waaye alwaaxidu mooy kenn tamit bi asmaa'ihi ci ay turam wa sifaatihi ak melom foofa nag kenn la al ahadu moom lenn la bi zaatihi ci nekk-nekkam alwaaxidu kenn la bi asmaa'ihi ci turam yi wa sifaatihi ak melom yi maanaam wala benn la voilà mën nañu al ahadu kenn la bi zaatihi ci nekk-nekkam ñu ne alwaaxidu benn la bi asma'ihi ci ay turum wa sifaati ak melo turia moy tur yalla yek melo yi ni bari bari bari bari bari yep ben lañ waye tamit dañu nek ci ben manam dañu aju ci jëm kesse euh al mutajalli mom moy ki feñu bi huwiyati ci momak wala ko jóg moom Mon alxaqiyat gay ko donc celui qui se manifeste donc le manifestant par l'ipséité de sa réalité de la vérité suprême voilà voilà Madame, moi moi, moi, mom moi, moi moi voilà kon mom moy ki mystère total bi mu nekk parce que saa ñu waxee huwiya rek on parle de de mystère dañuy wax ci koo xamante ne dafa fàddu nekku fi xamuñu ko gisuñu ko dégguñu ko mosuñu ko laaluñu ko dajuñu ko te dafa inaccessible imper imperceptible intangible mystérieux euh, moom kon dafa feeñoo maanaam ci ci nekk-nekkam fi majali ci yaatuwaayu zawatil bariyati nek nekk mbindeef fi moy le champ des essences des des créatures manam kon ni nga xamantene mom moy créature nek yi nekk-nekk yi moom maanaam ci seen euh, champ manam moy domaine de définition bu dee meun nañ ko tuddee noonu wala domaine d'existence voilà foofu la feeñee manam mom moy borom subhanahu wa taala bi mu nekkee ku laqatu nëbbatu Ken mënu ko dag kenn mënu ko gis Ken mënu ko am Ken mënu ko xam kenn mënu ko lamb? kenn euh, mu nekk mystère absolu total terewul dafa feeñal boppam dafa feeñal boppam ànd ak limi muy nekk léegi maam dafa ci yi ñooy support yi nga xamante ne ci la feeñalee ay turam ak ay ñolom mooy moom mooy feeñal boppam mooy kan moom buur yàlla boobu di kenn di lenn di benn di ki feeñal boppam ci mbindeef yëpp fii yëpp dara amu fi lu dul feeñ waaye turu yàlla ay melom maa ngi seede kenn gi mu nekk kenn tey waruñoo jaamu keneen ku dul moom waaye wa ashhadu maa ngi seede tey dëggal wóolu anna sayyidana naka sunu sang ba muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamab buur yàlla la kon jaamam la du yàlla de jaamam la du nawleb de jaamam la wa rasuluhu te ndawam la maanaam moo ko yebal allazi mooy ki nga xam ne gannaaw ba mu nekkee jaamu borom subhaanahu wa taala taxaw ci maqaama ubudiyya googu nga xam ne mooy le fait que moom jaam la mooy ki nga xam ne xallaahu ràng na ko moom borom subhaanahu wa mooy da koo solal bi awsaaf ay meloom moom borom bi ay caractéristiques am ay ay ay qualificatif la ko solal wa ammahu ba pare mu mu làmboo ko mu làmboo ko ba mu mat bi yi ci ay sew sew xam-xamam ak ay sew sewu meloom wa kachafate mu wuññil ko loxoo ñeel ko an astaarihi wëlliif mbalaanu suturaam yi maanaam mooy rideau yi nga xam ne ñoom ñoo tax voile yi kiiraay yi nga xamante ne mooy mbalaanu kiiraay yi voilà nga xamante ne moom moo tax ba mbindeef yi mënuñoo xam ku yàlla loolu nag cet ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokku ci moom yàllaa ko ko te loolu moo tax mu symboliser ko ko ci laylatul isra mu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis boromam voilà voilà mom lañ wax ci jawaahiru xaqaaqi daqiiq ne ru'yatullahi xaq xussisat li ulaakum lakumu yaa dalalatal urafa'i voilà moo tax ñu ne ko yow yenente sallallahu alayhi wasallam ru'yatullahi gis buur yàlla xussisat ngir seen kawe waay yow sa kawe gi nga kawe moo yàlla jagleel ko yow kese lakumu yow dalalatal yow mi nga xamantene yow yaay tektale yow yaay tegtalu indication ñi nga xam ne ni ñoom ñooy nandite yu mag di xam yàlla moom rek la ko jagleel wuññi ko moo tax euh, wañ wan ko dëgg-dëgg moom yàlla mooy kan mayu ko keneen ku dul yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu daa bokk ci jagleem yi wa a'lamahu te mu xamal ko bopp mat sëkk bi asraar yi ci mbóotam yi wa zahara te mu feeñ ala qalbihi ci xolam bil kamaali ci mat borom subhaanahu wa feeñal matam ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala jawaarixihi waaye tamit ci ay cëram bi sifaatil jalaali ci melo yi kawe wal jamaali ak taar muy melok màggaay ak taar mooy côté majesté solennité ak beauté yépp dafa feeñ ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh boo gisee mooy jëmm ji gën a mat ci jëmm yi ci zahir ak ci batin ci gàmm gi ñu defoon mën naa ne waaw ren la mën nañ ko wax ren borom subhanahu wa ta'ala jàppandal nanu ba nu am luñ ci euh, doon waxtaane ci jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye tamit jëmm ji symbolisme yi ci nekk ci yenn wàll yi ci côté jikko ci côté doxalin et cetera euh, donte am na fànn yu bari ak wàll yu bari yu ñu bàyyi ngir ne euh, waxtu wi doon ñu ko woon may ngir ne euh, dafa bari et cetera te li ñu am li ñu gënoon a amal solo moom mooy def description bi quand même maanaam que yonent bi sallallahu ñu décrire ko. def portrait physique bi ba maanaam mel ni comme si yaa ngi koy gis laa sën ko yenent bu tedd boobu day gis nga maanaam mi ngi wax ay xaqaayiq yoo xam ne maanaam dès lii nii ci ouverture bi da ngay gis ne mi ngi wax ay xaqaayiq yoo xam ne ci jawatul kamal lay wax maanaam jawatul kamal nekkul lu dul di ñu leeralal maanaam yi nga xam ne moom la ubbee wax ji moom la Seydi Harazim radiyallahu anhu ubbee wax ji mu ne sallallahu yal na buur yàlla julli alayhi ci moom wa ala alihi ak ñooñam wa asxaabihi ak saxaabaam yi radiyallahu anhum alkummal ñu mat sëkk ñëpp ak ka ñoo mat saxaaba yi radiyallahu anhum amul ku ci matadi gisoon nuñ ko ci kunuus yi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, tant que mi ngi fi doon nekk borom bi doon na feeñal ci yenn saxaaba yi saxaaba yi radiyallahu anhum yenn xeetu doxalin yi ngir àttey sharia mën a tegu ci seen kaw nit ñi mën la gis exemple waaye loolu nekkul seen réalité seen réalité mooy ñoom dañ saxaaba yi danoo mat radiyallahu anhum loolu lu mat a bàyyi xel la et buñ doon wax naan am na ay naafeq yu doon dund ci biir saxaaba yi yu fa nekkoon tamit nekk maam nekkuñu woon ñu bëri bëri waay boo xamante ne dañ leen a euh, dañ naan way mënuñu leen a xam ak yooyu déedéet ba pare nit ñi dañ leen a xamoon maanaam ñu xamoon lañ ni xam nañ ni ñii ay naafeq lañ xamoon nañ leen bariwuñu woon ba pare ñu xamoon lañ alquran wuññi na seeni mbir rawatina ci sootul fadiha muy sootul tawba kenn ku ci nekk ci ñoom xam nañ la ba pare na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu deraan daan na ko wax naan ñun jamono yeen bi sax naafeq yi ñenn rek lañ daan gis daanuñu leen gis ci jàkka ji mooy naafeq yi xamoon nañ leen mooy wane ne ñoom kon xamoon nañ leen

te borom subhaanahu wa ta'aala dafa def ne mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàngal suñu diine ji naafeq bokku ci woon parce que naafeq du jàngale diine taxu koo jóg ba noppi sax comme xamoon nañ leen kenn daanul jëlee ci ñoom dara loolu lu mat a bàyyi xel la ci sew-sew boobu ci pour ci affaire saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo mat sëkk lii mooy seeni mbir radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim képp ku leen doyadal yow yaay ki doyadi képp ku leen di tuutal yow yaay ki tuuti képp kuy wàññi seen dayoo yow yaay ki wàññeeku képp kuy am lu muy ñu muy xeeb ci ñoom wala ñu mu jàpp ne moom mën na leen a gën wala keneen mën na leen a gën yow yaay ki tuuti mboolem nandite yi mooy aarif billahi mboolem boroom xam-xam yi nga xamante ne dëgg dëggi boroom yi xam-xam la dëppoo nañ ci ne saxaaba yi amul kenn ku mel ni ñoom ci lu leen jiitu ak ci lu leen mujj yeneen yi alayhi salaam rek a mel ni ñoom rek ñoo leen raw ñoom. yenent yi la alayhi salaam ginnaaw yenent yi alayhi salaam saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom sax ils sont hors catégorie kenn du leen tuddee sax ay waliyu faf bu ñu wax waliyu saxaaba yi kenn waxaale wu leen ñoom leneen lan radiyallahu anhum ndax ñooñu ñooy jëmm yenent bi si boppam sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo jeex ci jëmmam borom subhaanahu wa taala boole leen indeendoo ci bém jamono comme ni ko yenent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ne jamono yëpp dañ fee ne borom subhanahu wa ta'ala tan ñi ñi gën ci mbindeef fi mu wàcc leen jamono jo xamne man mu indi ma ci ñoom seen jamono ñoom ma fekki ko muy sahaba yu teddi radiyallahu anhu te hadith la bu nek sahih imaam bukhari rahimahullah bu ping amul suuf qui lu suuf d'aucune insuffisance aucune faiblesse. euh kon inshallah taala ci mbeustal gogou dañuy yam fofu jotaay bii di ñëw ñu eh, ci li nga xamante ne ci lay wax ci wàllu jawat fu kamal eh, bi nga xamante ne moom la muy jawharatul kamal eh, fi madaxi sayyidir rijal sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nii moom la tudd et que ko firé min ko tuddé al fuyudat ar rahmaniyah fi sharh ayn ar rahmat ar rabbaniyah nonu la tuddé sharabi muy al fuyudat ar rabbaniyah ar rahmaniyah al fuyudat ar rahmaniyah fi sharh ayn ar rahmat ar rabbaniyah incha allah taala ci jotaay bi di ñëw ñu gis ko ñu taxaw ci incha allah ñu yem foofu ba jotaay bi di ñëw wallahu taala aalam wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaleykum salaam wa rahmatullah ah cheikh ñu ngi xaar wa nahnu kazalika alhamdulilah léegi char charxa bii nii est-ce que Sidi ala Sidi Ali Arajim radiallahu moo ko charxa directement wala boog ci waxi Cheikh na Tidiane la ko la ko jëlee directement waaw ci biir waxu Cheikh Tidiane radiallahu la ko jëlee mais loolu dina ci ñëw maanaam lii moom moo ko introduire mais moom lu ci ëpp ci wax yi li ci ne maanaam ay waxi Cheikh na yi la radiallahu anhu tamit te dina koy dina ko préciser de façon ci biir euh, incha allah euh, partie bi nga xam ne moom la ñu mujjee gis d'ailleurs euh ñu koy buñ ko xolé manam euh di nga gis ne euh voilà ñu ngi léral fi ne mom wa wadaa radiyallahu anhu ñu ne taqyidan mufidan ala salatu musammat bi jawad al kamal manam wax Cheikh Tidiane la d'accord maanaam Cheikh Tidiane mi lay wax moom moo ko def euh, voilà mais moom moom dafa am yoo xam ne moom moo ko wax par exemple bu ñëwee ci gëneel yi après fii da gis wa qaala cheikh radiyallahu anhu après ñëw ne wax ci wax yooyu nga xamante ne moom la jëlee ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moom lay nettaliwaat comme ni nga xamante ne noonu la sharaxee al yaqutatul xaqaayiq ak salatul xaybiya ci njàngalem Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu loo xam ne daf ko déggee ci moom mu toxal ko voilà wallahu taala alam jazakumullahu xayr te su doon ne waxi boppam la sax day am valeur boobu day am valeur lu Cheikh Tidiane wax radiyallahu anhu xataa bu dee waxu boppam ndax déjà benn maqaama bi mu taxawee ndax yeneen ndax Cheikh Tidiane radiyallahu wax na ko ne ko dama laa teg man sama place mboolem xeet lu ñuy joxe ci ay secret ci leer ci euh, ay mbir ay zikar ci ay xeeti lu mënti doon ci ay xam-xam ay bëbb fu yu daati ak leneen lu mën a doon yow Seydi Al-Harazim radiyallahu anhu jox naa la ko nga nekk sama kuutaay ci anam goo xamante ne te loolu noonu ba biir àjjana ba abadan ca biir àjjana sax def naa la yow yaay sama kuutaay ma yow yaay ki ma wuutu yaay sama xalifa te man maa la jël ba nga xamante ne def naa la loo xamante ne maanaam ni ma la def mooy ne euh, lu tukkee ci yow daa mel ni lu tukkee ci man sans mu am benn différence entre que ni ci man la jóge woon wala ci yow la jóge loolu la ko taxaw loolu la ko wax ci lu loo xamante ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu loolu benn la ñaareel bi ci des mooy ne même bu doon moom wax tamit valeur boobu lay am mooy ni ci jeexitalu téere bi bi mu ko bindee ba pare def ko wan